amuloo noon kenn bañu la xanaa ku la xamul ku jëflanteeg yow xam na sa mbaax baañu soxna say na boo amuloo noon kenn bañu la xanaa ku la xamul ku jëflanteeg yow xam na sa mbaax baañu soxna say na boo amunu sa fay xanaa di la ñaanal jegeen ngir nga yàgg fey ku dégg way wi nel amin ci barke Mustafal amin amunu sa xanaa di la jegen ngir nga yàgg fey ku dégg way wi nel ci barke Mustafa al bur yàlla sëriñ bi noo ngi deeti ñaan asgoor dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lun la ñaan ngir yàlla naatal xarlu ge sëriñ bi noo ngi deeti ñaan asgoor dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lun la ñaan ngir yàlla naatal xarlu ge jërëjëf Muhammad kàddu yi macha allah kàddu yi rafet na ah, su ko defee mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk Sénégal mbokkum biti réew ku dégg kàddu yooyu dégg mat yooyu nga xamante ni yëkkati neen ko macha allah nga xamee ni bis bu mag bi delsi na bis bu mag bi nag mooy bissu kalimatul xaq di bis boo xamante ni macha allah nu ànd kook sunu sëriñ Cheikh Oumar Ndiéguène yàlla na fi yàgg te wér macha allah bis bi nag nu koy def si ndigalu Serigne Muniru di xalifa El Hadj Ahmad Baro di xalifa El Hadj Mouhamad Ndiéguène di ko def itam si ndigalu askanu Ndiéguèneen gi yëpp macha allah wane di ko def si ndigalu Cheikh Oumar Ndiéguène mi nga xamante ni mouvement bii di kalimatu xaq moom la yàlla def incha allah mu jiite ànd ak njaboot gi yëpp. su ko defee bis boobu la 30 décembre la incha allahu rabbi fii si sifatullah su ko defee mbokk jullit yi li nga xamanteni moy wote bi moy wote jëm ci yàlla moy wote wote bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam woote woon muy islam muy xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku wax nak sifatullah wax kalimatu xaq yooyu baat soo ko xamni lépp dafa wat Cheikh Umar ñëw leen nu ànd jaamu yàlla ñëw leen nu bok li nu bok ñëw leen li ngeen am jox leen seen ñaari wayjur man Cheikh Umar lima am ma jël ko nu and te bokk jaamu yàlla loolu nag mooy woote bi bis bi nag insha allahu muy le 30 décembre fii ci Ngent ci sifaatullahi ci pàkku Cheikh Oumar muy pàkku leer gi macha allahu su ko defee dañuy jox oustaz paté insha allahu rabbuna mu wax li nga xamante ni mooy programme bi insha Allah su noppee nu àggale li nga xamante ni moo di kàddu yi kon oustaz paté bismillah tafadal ya cheikh bismillah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh du ginnaaw ba nu sante yalla jiddu ci sang bi yonent yalla muhammad nu tew fi tay ci bis bi nga xamni moy avant première bi di tiant Cheikh Omar Fouti Tall jegen lu ñew nak ngir joxal programme bi nga xamni moy dox si bis bi du ñu xëyee incha allah si bis bobu le 30 décembre 2023 suñu xëyee ci suba ci nan jang alcorane wate fi kamil li waral nak ñuy jang alquran parce que programme bi dañ koy ubbee alquran suñu jangé kami ba nopi suñu paré sëñ bi dina génn jang téré bi nga xam daf koy jang at bi yépp di jox àddee yonent yalla muhammad su jangé téré ba téré bi yegg am na ñaari ràq yo xam daf koy julli ñaari ràq yoy nak na ci mbokk julli yépp bayyi xel mu nek ñaari ràq yo xam ñaari ràq yu am solo la tax képp ku ko mëna téwé rek nga nga daal koy rek am na solo trop su noppee si ñaari ràq yooyu moom sëriñ bi du pare am na consultation médicale boo xam ni gratuite la boo xam da nga koy def fii nga xam ni waa hôpital régional ñoom noo jël initiative di ko def fii si sifatullahi man baax baaxlu irfaani wa bi bihi tuuba wa tuuba li man tawajaha dalil consultation boobu nag képp koo xam ne bëgg na saytu sa yaram wala nga bëgg a xool sa yaram may nan la nga ñëw nu xool la seet la te da te ma doo joxe dara te du fekkee am na médicament yu la mën a dimbale dañ la koy may kon consultation boobu nu bàyyi si xel te nit ñi nuy teel a ñëw si consultation bi parce que dafay xat te képp ku bëgg a faju foog nga teel a jug kon du ko defee consultation bi da nga ko bàyyi xel du consultation bi jàllee sëriñ bi dina ak accueillir ay ganam mooy ziar bi nga xam ni daf koy def nga xam ni mbokku taalibe yi soppa yi nga xam ni ñu ngi jóge ci ay gox yu ne ñëw bëgg a saafonteeg ñoom dina ñëw ziaranteeg ñoom ñaar leen nu dellu si dal ya su ziar boobu jàllee nag xéwal dina ñëw képp ku nekk si dal yi toog xéwal yi dina la fa fekk nga xéwalu naan lu sedd daal di laal ndox loolu du weesoo nag nan dem si tànt ba nag tànt ba duñ fa demee nag animation ba ka ko yor mooy sëriñ ba la Njëgeen moo fay tagg yonent yàlla Muhammad moo fay tagg waxu mag yi nga xam ne wax na ko Seydina Muhammad du ko taggee anima ba mu ba mu sotti كان خمني موي يار وقتان بموي أحمد سال نجعين موم موي كونفرنس يبه دينا فا وقتان وقتان بو خم دفاي ديلو سي تصوف دفاي ديلو سي توحيد دو لول ليب جالي نك مو ديس نك دنج دبولي موي شيخ الامر الفوتي تال نجعين موي ميساج بيغا خم داف كوي جوخي أنا اني موي ميساج بو خم ني ميساج بو فور لا ميساج بو خم ني ليب توحيد لا message bo xamni lepp tasawuf la message bo xamni lepp dafa lay delo ci yalla ak yonent yalla muhammad ta message bobu li sëñ bi du ko waxee ren bala kaa waxat déwén moo tax message boobu ñëpp a koy taaxirlu kon message boobu da nga ko bàyyi xel su message boobu jàllee sëñ bi nag dafay dem si li nga xam nag mooy aslu ba mooy cosaan ba muy zikrullaa dina yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ànd ak kaag judit yëpp ànd ak kaag mbokku taalibe yëpp ànd ak kaag ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu ngir yàlla ak seydina muhammad ngir màggal yàlla ngir màggal yonent yàlla muhammad su loolu weesoo nag mu daal di ñaanal mbooloo mi yëpp ñun ñëpp yàlla def nu fekk waat déwén mu gën a baax gën a féex gën a yaatu kon du ko defee loolu mooy programme bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah Oustaz Pathé jërëjëf kàddu yi leer na noonu la mbir yi tëddee wàllu paj mi itam macha allah nu ànd koog les amis de l'hôpital Ahmad Sakhir Ndiéguène Cheikh Ahmad Fadal Ndiéguène jiite ko macha allah di njaboot di kilifa bokk ci njaboot gi incha allah ko defee mbokk yi. Euh, bis baa ngi noonu bis bi bisu yàlla la bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bii Cheikh Omar nee na amul kenn koo xamante ni dañ ko koy parrainé yontu yàlla Muhammad ak sunu borom azza wa jalla bis boobu nag mooy bisu jullit yi ni ngi ciy woo mbokk jullit yëpp képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ngi lay woo ci bisu yàlla bii bis bi nag macha allah ni ngi ciy waa Somone yi nga xamante ni celui Somone celui euh, bu Géejawaay ak bu lomen ak ñi nga xamante ni mooy waa Saawi waa Nooto bàyyiwunu kenn ñëpp suñu lim dañuy juum dina am ñoo xam duñ leen lim waane te ñëpp ñoo ko bokk incha allahu rabbi nii nu koy waajalee nag chaque année noonu rek lañ koy waajalee incha allahu ñaari rakk yi imam Paate wax na ko muy ñaari rakk yu am solo. sëriñ bi amul kudul yàlla ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xirtanunu kudul ci yàlla ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na baninu suñu demee ba waxuma leen yàlla waxuma leen yontu yàlla muhammad man Cheikh Omar bàyyi leen ma fi te ngeen topp yàlla ndax man duma yàlla duma yonent bi te doonoo ànd rek jaamu yàlla kooku nag mooy wasila bi nu soxla kon yàlla na ko yàlla jàppale te yàlla sàmm nu su ko defee yàlla defal nu jàmm defal nu salaam rahma wa baraka te defal ko jullit yëpp ci baaxu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.